concurrent bu sincère quoi quand même moom <laughs> nekkul nekkul si bon nekkul ci logique ku defanteek ak nangam mm, nangam mm. parce que kuy defanteek ñoo xamante ne dañoo defante ba falu franchement booy defanteek ñoom da ngay sonn <laughs> da ngay mais mais est-ce problème c'est pas Ousmane parce que dafa mën ni gars yi seen problème mooy ànd bi Ousmane Sonko ànd ak pré ànd ak la mm-hmm. je m'explique euh, li ma gis euh, cadre Alioune yi mu génn fustigé ne c'est Ousmane Sonko qui gouverne opposition bi da nga gis ab Mbow buy wax danaa noo mais dafa man ni ñoom eh, lépp luy tàqale eh, Ousmane Sonko ak Diomaye ci la ñu nekk. Mhm. ba kàddu commissaire Keïta yi naan dañ doon xeex ci pale bi ca la bokk. noo gisee est-ce que seen problème c'est pas Ousmane Sonko. bon Ousmane Sonko moom mooy seen problème. Mhm. te problème bi mooy Ousmane Sonko tamit problème la. ah problème la. waaw dawul waaw ah, nu nu mën tooñ de <laughs> parce que waa ji eh, dama leen dafa mën a tooñ tamit génn na cokkas ne leen imbis opposition saaga meeg waaw eh, lu wax ko boo <laughs> dafa war a dafa war a xam dafa war a dëgg bal bi tuuti ko hmm. waaw parce que xam nga heure bu génnee sànni leen benn loolu bari ñu nekk fa di moom mu dem nekk ci leneen hmm. comprendre moo ko tey nag ko ok stratégie la. waaw moom moo ko tay woyu la quoi. <laughs> woyu politique. politique la quoi. parce que mhm. pànk la quoi pànk la. Mhm. dafa mën a defante quoi en quelque sorte. Mhm. et puis nag euh, Ousmane Sonko dafa subir ah. ay a trop subi. laa subi nag parce que li mu daj yàllaa ko dibbal ji mu ànd ak sagom ba léegi. mais tey ji bu toogee ni toog def euh, fàttaliku. xoolal màggalu daaw bi ak màggalu ren bi. Mhm. <laughs> ak màggalu daaw bi mi ngi fekkoon Ousmane Sonko réanimation. ñu ah, naan ndax ah, ah, dina dund wala du dund. absolument. Hmm? <laughs> màggalu ren bi mu demee nii. Mhm. xam loxo yàlla mi ngi ci. donc ak loxo ñaanu sëriñ su baax si. Mhm. di profité di ñaanal yàlla aussi gudd fan ak yéen Mouhamadul Mountakha. Mhm. tu vois euh, ci magal xalif bi. xalif mhm. général des mourides ak xalif yi nekk ci Sénégal yëpp. Mhm. que ni Sénégal dëkk la boo xamante ni am na baatin ko am na baatin mais Ousmane Sonko dafa subir. dafa subir waaw ah, dafa subir te mm, loolu mu doon wax loolu mu doon wax. tey la ko gën a nag mën a wax. ok. que dafa démb dafa doon wax. mais yoragul woon dossier yëpp ci kaw taabalam. Hmm. mais tey nag. Hmm. tey booy xool dossier yëpp ak ci kaw taabalam. li daf ci am lu ko leer. Hmm. xam nga ci ci ci ci tarbiya dañu naan xam-xam ñeent la. ñett ah. aynul yaqiin xaqul yaqiin ak xaqul ak ay kiiwul yaqiin tu vois ilmul yaqiin aynul yaqiin xaqul yaqiin. ilmul yaqiin mooy li nga dégg rek. xaqul yaqiin nag mooy li nga teg sa bët. li nga teg sa bët nag moom léegi démb da doon wax. Mhm. di dénoncer. di dénoncer tey dafa yor dossier yëpp ci kaw table. dafa yëpp ci kaw table te tey la xolom gën a jeex. Mhm. tey la gën a am lu ko metti ndax ndax ndax tey la tey tey tey la xam lépp. xam nga barki démb génn na fi daal ne nous en état de faillite. Mhm. <laughs> Ah, de faillite ñoom lañ ñoom état bi ñu fekk dëkk bi. waxaguñ ko. waay. ba léegi waxaguñ ko. mais est-ce ñu wax ak sénégalais ah. dañu war a wax nag. waaw parce que parce jot na aussi vraiment ñoom sénégalais yi xam état des lieux ñoom li ñu fi fekk mooy lan. xam te sénégalais yi sénégalais dañu soxla loolu. ay surtout dañu soxla loolu parce que tamit euh, boo boo xoolee tamit Macky Sall la ba muy bëggee jël réew mi noonu la ko doon dénoncé ci jamonoy Ablaye Wade. Mhm. Mhm. di wax ne ñoom Ablaye Wade ak yooyu. dañu saax saaxe alalu dëkk bi. Mhm. te boo xoolee li ñuy wax ni léegi ci problème mu suuf. mi ngi tàmbalee ci jamonoy Ablaye Wade. yàgg na de 2000 ba léegi hémorragie bi foofu la commencé ko ok est-ce hmm. yaa ngi dégg wax ji donc euh, Sénégal man damay wax ni hmm, administration bi. Hmm. ñoom ñoo nekk gàllankooru sénégal yi. <laughs> parce que ñoom administration bi dañ leen jox pour ñu administrer Sénégal. ngir ñu sàmm askan wi. ok fexe ba askan wi nekk ci jàmm. mais boo xoolee problème yi askan wi am yëpp ñoom ñoo ko jur. ñoom ñoo ko jur. ok donc diggante 1960 ba fi mu toll nii ndóol bi Sénégalais yi ndóol du seen ñàkk bëgg bëgg liggéey du seen ñàkk yitte du seen mm-hmm. ñàkk xam-xam. ok mais ñàkk jubbu administration bi la rek. Mm-hmm. heure bu ñu laaj donc donc yet bi war naa dal nag. non dafa yore dal parce que parce que. ni booy naan na yet bi dal. parce que aussi je pense que ne tey euh, comme ni ñu génnee woon liste. teg ko aéroport AIBD ku ñëw ñu jàpp. war nañoo mën a citer ñi nga xamante ne tudd nañ leen Sénégalais yi xam lu leer. tudd na leen ñu ne ñii buñ ñu génn ci réew mi. te te te loolu te te instant yi ñu toll nii euh, état bi. Mhm. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu deful le compte. Mhm. jàpp ñi ñu war a jàpp ñi nga xam ne dañoo jël alalu réew mi ñu jàpp leen nanguwaat alal boobu delloo ko réew mi. Mhm. su boobaa maanduwuñu. su boobaa promesse ñoom bi ñu defoon. Mhm. ba ñu fal leen fen nañ ñu. Mhm. trahir nañ te bii dafa metti parce que bii ñoom seen falu dafa dafa dafa bakkan def ci tuur. waaye bakkan yu bëri nag wax bakkan def ci tuur. Mhm. Sénégal yi nekk ci ci fitna. àdduna bi yépp tiit. wallaay ñëpp yaakaaroon di Sénégal day basculer. yàlla def ci sutura. moo tax fi mu toll nii jëlaat mbir mi justice. yetu justice jénn dafa dagan parce que yetu justice bu jénnul rek dañ leen di dañ leen di xoolee comme ñu complot y' a pas xoolee comme ñu complot et mm-hmm. complot askan wi. Mm-hmm. moo tax justice foofu mu foofu mu jénn. mais mu nekk nag justice boo xamante ni <coughs> justice bu neutre lay nekk. Mm-hmm. parce que tamit. je pense que li tax mu jël temps bi yëpp noonu. c'est parce que man dama doon wax ni peut-être que dañu bëgg a bàyyi ba def assise de de la justice. ba ava ba juge yi ak euh, juge yi ñu war a renouveler yëpp ñu renouveler leen mhm. après ñu jox leen dossier yi ok bu ko defee ñoom ñu mën a liggéey si seen axulaay taala mhm. ba képp koo xamante ne woo nañ la ñu respecter say droit ok hmm. respecter say droit mhm. liñ la jiiñ ba pare may la temps nga mën a défendre say droit Bassirou euh, xam naa temps bi sax li ci dafa xat dafa xat trop euh, le couple duo Ousmane Sonko Diomaye noo ko gisee en tant que opposant